bienvenue chez 3M menuiserie métallique Mansour Fi, lepp lo soxla ci ameublement wala décoration sa bir kër fi rek la chambre à coucher salon bureau porte fenêtre escalier aluminium wala fer bu la ci gëna ñu liggéey la ci liggéey bu mucc ay nee la yow mi soxla sax ay plateau de télé daw sil gaaw 3M menuiserie métallique Mansour 3M menuiserie métallique Mansour vous propose des matériels design et stylés classe et confortables à des prix abordables garantis pour 2 ans adresse Roy Tali Diallo en face série. téléphone 77 404 83 94 77 404 83 94 Walengedev 77 975 75 95 77 975 75 95 Mansour Diop à 3M menuiserie métallique Mansour consommons local diapti développement Réumi. mbokk yi seen jafe-jafe jeex na yow mi dëkk Sénégal wala nga dëkk gambi ak Thierno Amadou Sow mi ñu xam ci biir réew mi ak ca bitim réew da nga bugg a seetlu seetlu bu leer moo xam istixaar la wala lamlu jokkool ak moom gaaw bu fekkee da nga am jafe-jafe ci sa wér-gu-yaram lu ci mel ni hémorroïde wala néew kattan wala jafe-jafe am doom jokkool ak moom gaaw yow mi sa couple am jafe-jafe diggante jëkkër ak jabar gaawal nga jokkoo moom yow mi am ay doom déggal luñ la toppuñ da nga bëgg ñu la topp gaawal nga jokkoo Thierno Amadou Sow ci numéro yi bu fekkee mu ngi fii ci Sénégal defal 244 44 46 bu dee ca Gambia defal 284 00 00 ak lii nag bu ñaala mbokk yi téere poos lañ koy wax def ko sa poos rek nga daal di tàggoog ñàkk weddi nag gis da caa bokkut ak Cerno Amadou Sow rek aji yëpp ay fay. White Secret White Secret staru diw yi dikk na crème bi lay jox teint bu macha allah teint bu macha allah bu ñëpp di coowee nag ba coow li jug nga ne law la cat White Secret maanaam teint bu impeccable effacer imperfection yëpp lu mu fekk ci sa kanam yóbbu ko. lu mu fekk ci sa yaram yóbbu ko fexe muy nes nesi fu mu white secret fee mu jigéen waaw waaw ñu taaru ñi moom rek la ñuy xëccoo bu mu ak white secret waaye yow white secret ak ay ci taaral temps white secret 77 441 08 18 77 441 08 18 ou le 77 449 61 91 amna tamit bébé Clear da nga am problème mu peau am jafé jafé ak ay rew ay point noir utiliser bébé Clear bébé Clear day réparer ce peau noyel ko taxi si ko ak bébé Clear da ngay commencer gis résultat léegi léegi léegi ndax day rajeunir ce peau sublimer ce teint teg si foo ni ñu ragnel ak bébé client yanj ba faw ngay am fofu rodis 77 441 08 18 77 441 08 18 ma sàcc wax leen coco clear si lu yàlla sàkk jigéen ndox ak gàncax ñoo ci dàq xale bu yànj bi daa bëgg gàncax gàncax bëgg ko moo tax mu xamal ko li gën ci deram coco dara gënu ko ci po jëfandikool coco clear ak coco clear da ngay gën a tàkk ni jant waaw waaw fu jant bi leeree nga leere

personas am Personne de personalité ampliée taalibe du dara looy nëbb nii test de grossesse kii bayu dangaa dëñ kumpa nag dama am deux semaines de retard donc mooy xool lan moo xew dafa lu maa ngi toog fii di la xaar koy xaar deux semaines laa la wax xam naa li wax dama gëj a dégg bonne nouvelle ay mauvaise nouvelle rek lay dégg 对。 positif. Positif. C'est positif wax mo ëpp solo. xew. nañu jóg gaaw nu mu gën a procureur nee na fay bayyi bayi, loy wax ni su ko bàyyi musiba lay doon ci yow. procureur moom dafa dof wala. ayda di bu koy bayyi may ray légui nak togay amatul lan moy pexé Jool Faal Atlanta mom rek mo ci pexé moy suñu dernier recours mu japp ayda ñu tejaat ko. sinon daf bu génnee moom du baax ci man. voilà wax nga dëgg ci Dior Fall rek la ñu mën a jaar. Mm-hmm. nañu ko dox nag nu mu gën a gaawee su ko defee mu jàpp ko. Mm-hmm. ñu mën a régler suñu problème. loolu du dara ma ak Dior Fall xamante nañu. je compte sur toi. ay yow tamit da nga fàtte man. sa fas bi nag ak mën a daw léegi ma pare añ xaar ma raxas di la si xoolal xoolal mah xaar añ eh, damaa ya yàkkamti damay dem lalu lu xew nen ne jëlal bagage yi nga am si kër gi yëpp nga génn kër gi mais pourquoi may génn lan la Aïda procureur bàyyi na ko judiciaire la am sira Dia mau fenn fii lay gis nga su ma doon yow dinaa aar sama bopp. Eh, eh eh lu tax may aar sama bopp man Aïda lijjantiwuma ko ragaluma ko par contre Aïda léegi moom ma ragal. waaw jànk doo xaar nga añ ba pare. xaaral ma na demal lii rek. chauffeur may ma may ma may ma may ma may ma bul dem de xaar. Jij maar pak. Ana doy sa dong pak bi. Ah, tahu bukan mu gëna ya dama yakamti. Ah, bi de mom ñew na mom. Lu muy jaar? Bi 300 lay jaar. La sama ko ci kayit. Kayit. Non non, kayit nak aw mo ko. Kon jaay oh. la sen ki mak waaj. Xaara sa wéccet. Madame, Lire nous sa plainte attentivement mais est-ce que réellement ni ko expliquer non ci plainte bi Non le problème bi si si non le démé ba ci papier transfert bi mako defal yépp mi ngi ak sama sac ak man audio buñu rek même appel téléphone d'accord c'est bon may ma tuuti ma ñëw. mon adjudant je pense que cette fois-ci am nañ occasion pour diapat mes réseaux hmm. te gis nga bi yom mënu si il faut mu dem kasso non si ñëw dafa une ay preuve indiwul ay preuves. dossier le indi escroquerie au mariage portant sur un montant de plus de 20 millions a une preuve versement Il nee na indi na ko mais gisaguma donc mon inspecteur ça fait le compte damay dem kër Aïda Diagne jëli ko vas-y fais-le Polícia da Nossa Bouchra looy def sama kër. damaa ñibbisi dama ñëw pour la àq. baal naa la àq waaye man ak yow mënutul nekk gis naa bu baax sama papa lu muy daj du ma sëy ak jigéen bu may dóor. almaami baal ma àq man damaa juumoon rek erreur la woon rek maa ngi jéggal. erreur Bouchra da ngaa déggul wala lan. ay eh, ay olof laa la làkk de jël sa valise bi nga génn sama kër du man ak yow pare naa si yow. Oh, maami man ngay génne. yow duma la ko waxaat téye sa valise nga génn. eh du yombee noonu gis nga yow sa yaay àdduna bi yëpp dinañ xam ne moom mooy mère réseau lu leer laa la wax. Marichou duma ko bàyyi kenn ndax laataa maa def dara damay jëfëndiko sama poudre magique sourire bi nga xam moy mooy jox samay bëñ éclat bu machallah gamme complète magique sourire bi amna ci marché Sénégal yépp parfum de classe yi ci àdduna bi yépp ñu am déclinaison ak Beyaz. Beyaz Blue Seduction. <laughs> Béaz, La vie est belle de Lancôme. Yes! <laughs> Béaz, baccarat rouge, unisexe. Béaz, Manifesto, Yves Saint Laurent. <laughs> la petite robe noire de Gerlin ngay la petite robe noire de Gerlin Beyaz. surprise yow Tay, tey 1 million ngay def. déclaration de quartier. Beyaz Olympia déclinaison des parfums de classe Béaz am Marche Bodem, marché boutique Bodem, Amnef. am ventre plat anini ñi bëgg wàññi yaram wala seen biir ceinture gaine ak ensemble amaigrissant nature glow ñëw nañu efficace lool ci wàññi biir wala sa yaram en général su fekkee sa biir nga bëgg ceinture bi ci da nga bëgg en général jëlal ensemble bi dañ defar ak matière bu mucc ayib tudd soo ko une fois mu am contact ak sa yaram day tàng naturellement di dindi bépp graisse bu nekk ci sa yaram sol def sport comme mën nga sol teg sañse bi ci kawam muy liggéey liggéeyam ngay liggéey sa liggéey yéen ñi am yaram te bëgg a jeex ñi am biir 77

pour effacer tache avec vergeture ni éponge pour effacer craie. Perfect Glow c'est une crème effaceur bu best. essayez Essayez ko tâche pour yëpp deñ ci xam-xam la ko Le maquillage, l'exposition au soleil, les mauvais produits, vos visages en souffrent. Problème de peau Essayez le soin du visage Super Correcteur. une crème hypoallergénique réparatrice qui soigne, nourrit et adoucit la peau. Souriez, vous êtes belle. Supercorrecteur, le soin du visage par CEF Paris. C'est. métti oui biir. Seex. police moo ko bàyyi. xaw ma la jóge ak pagam paaka. eh Paga. pour pour lan. ci paga bi ñoo nee na day xeex ak man. ay dafa dof la moko japp jàpp. xeex ma après ci la ma eh.

nene nu mu def. nene elle va très bien mu ci jàmm d'ailleurs Kéba nee na sax ëmb bi yàqu mu ngi tane bu baax. ah moom nee na ça va. sant yàlla. kon baax na kay toog ma wax la. benn lan ngay xaar pour sëy ak Ousmane. Maada man sa accord rek lay xaar doo wax rek laay def parce que yaay sama kilifa. kon baax na jigéen moom taaram du leen dul sëy te dafa am âge boo xam ne boo jaxasee xasee ba toll jëkkër kese mooy li la mën a protéger kon baax na alhamdulilah. loolu moom dëgg la. waaye yow xanaa boo mayee sa doom nag di nga nangu sëy ak Moussa Ndaw tribunal ba léegi. noo demagul. ana procureur lan la wax. nee na bu ñëwee dina ko door mandat de dépôt escroquerie au mariage et tentative de meurtre. mais lan ngeen di xaar. Madame Cissé Aïda Diagne dinañ def bëgg wax ak yow. Madame Cissé Aïda Diagne qu'est-ce qu'elle a à me dire celle-là moom mu ngi jël paaka day rey sama dom ba pare bëgg ñëw fii naan dafa taxaw am lu muy wax ak man. mon inspecteur te ko déglu il se peut dafa bëgg a avouer ne moom mooy maire réseau su ko defee ñëpp bon ok indi ko comme ça ñu déglu ko ba xam lan lay wax. bëggoon nga jàppale ma samay doom bàyyi nañ ma sama jëkkër war na ma mais yow naka laa la mën a jàppale après li nga def <laughs> c'est vrai que sikk naa ba fi sikk yam liñ may jiin ci jox faal man mi ma lek khalisam waye duma mer réseau Ousmane bu dee nga sétal sama der nga sétal ko ndax mu neex la mu nakati la man sa goro yow war nga fi taxaw devant moi di ma wax ay histoire de goro yow nga jël sa paaka bëgg a sama dom? et en plus de cela il paraît même que jël nga ay dom def ko ci sow pour mu naan ko nga éliminer ko tu te plantes là devant moi naan ma ay affaire de goro yow tu t'entends parler Ousmane lenn rek na bëgg nga xam ko gis nga kasso bi man duma fi yag te les apparences sont trompeuses yow soo mère réseau kan moy mère réseau maati sa liggéey rafet na félicitation félicitation wax dëgg yàlla fajul sama problème da nga bëggoon dong ma jappalu Aida jappalu nako tay nak il faut ñu sekki teraanga ah. demal ci bil amna na mu jox la gis ngeen ni mu doon insister pour nga jappalu jabaram. I, bil mu waye di mom dew ma ci bil li nga bëggoon yépp def nako dama la yàgg jox tay nak mes réseaux mom jot na nga fay ma sama bor. duggal ci néeg bi ci topp di ma fa fekk duggal ci néeg bi ci topp di ma fa fekk ko sax nag mu bis la amul problème waaye génnoon jox la sama lekk nga ma ñor bil kon yow yaay mes réseau Sequer. bi loo ci bind sax. 6M mooy Marietou M Mar Mar M Marietou. sama <laughs> papa dafa bëgg ko succéder ci impôt sport te man ñëpp xam nañu journalisme laa bëgg def sama papa nag buñ ko waxul lii du ko mës a xalaat a def. bii gée xam nga lu mu doon. sa bàjjen batoor xamal lu moko dara et puis man taluma di wër di doxal pour xam nit ki moy kan pour mën ko takk papam dafa annoncé won yaayam ni da koy takkal yaayam jox ko suppu kanja suppu kanja bobu tay moko yobbu alakhirah Marlo yu yang fi xana yu da ngay xaru do ranger ay yirem du defar nga defar ko ba mu jekk ma fekkee ak ma uute bu mësa génn kër maar war naa voyager yaay te du ma ko yëg billet séjour hôtel bi man nii maa ko ko jox Marietu wujju nga am wujju dëggantaan nga am yow Marietu wajjeewu ma ak lu yaayam laay wajje xam ma bëgg nga teggi ba mu set maa xam laa sa yaay jéeg bu amul dara la xam nga fa ngeen ma toppee ak lii lu mu soxla dama la soxla nga ne ma dañoo xuloo ñaata nga nga dof wala da nga naan kaani. xaw ma double rôle lay joué xaw ma wul double rôle mais man li ma wóor ba wóor mooy gis nga moom ak doomam def nañu lu ne pour ma takk la waaye xëy na dañoo bëggoon lu ma neex. boo bëggee dund sa love line demal ba ci balcon ba nga koy yuyoo téléphone. sa kër yow dafa mel ni gisoo man lu metti li may dund si kër gi. at damay tok duma ko gis sama jëkkër may wuy téléphone yow nga ne danga ma koy xañ sagar yow xamnu woon ni nga soxoree dañu len andil sukkar ko bëgg mu rafet nak mo tax ñu ne nañu boole lepp defando mu doon ben ma tegaat ko ci boobu bu doy ba doolee ci lay yépp yaa ma sama jëkkër ji man gisal yow buma fenn nit ku nité man moma ma gënal alal mam lan doyee kayitu kër gi

soxna moo ma ne yére bi nañ baye bu suba ñu sol ko may ma nelaw tuuti sama bopp day metti ma bal ma ak